maa ngi tudd Serigne May Dieng di baykat dëkk Kër Galo ci commune nu Ñaaxeen. voilà ñu nekk ci waajtaayu nawet baa boog ñu jeexal nawet nga gis nawet bi ren xaw na bari ay jafe-jafe trop euh, en tant que baykat waaye tamit nekk. opérateur yan jafe-jafe nga jafe nga ci jàngat. waaw Modou maa ngi lay nuyu di nuyu bépp auditeurs u Xew gi TV. Euh, di leen wax dal leen jàmm ci biir commune Niakhène euh, li ma la mën a wax daal ci mbay mi ren ci commune Niakhène dara dara dara dara lu fi ñor moom amu fi loolu moom yaakaar naa ni muy le sous-préfet muy ñi nga xam bi ñëwee agriculture muy les maires ñëpp ak population bi ñoom dund nañ ko du dara loo xam bii ñor na fi ndax euh, gerte gi nga xam ne bii moom lañu fi jiyeen fii ci commune u Ñaaxeen kenn ku fi yor bàccu di bàcc amul dañoo déqi tonni dugal noonu ci biir néegu ngooñ yi ba pare sax ngooñ ngo ngooñ mi sax matul far ngooñ mi matul sunguf la loolu kon jafe-jafe la ci dundal jur gi baykat bu bay ba pare nag munta am lu doomam yëy ba fii may wax ak yow bépp doom bu nit toggee ci biir commune ñaaxeen bii da nga koo jëndi laneen li ci dolli ko mooy nga jël tey dëkk bu mel ni ñaaxeen ak dëkk yi leen wër benn dëkk boo xam bii machine bojj taxaw na fa bojj fa kilo pepp amul en tout cas daal ci li ma la mën a wax daal ci mbay mi fii ci commune ñaaxeen te du ci commune ñaaxeen dong la yem dem na ba law ba dugg ci biir commune Pekes Mbayeen ak Ngandiouf pour def def ci seede sax moo lay wax ni la euh, mbayeen ak euh, nganjuuf point de collecte yëpp doon tijji muy Sekoye benn tijjiwu ci te loolu tamit mooy li xew te ñaaxeen. yaa yore woon bu Kilmaxa ak bu Mbay ak bu ñaaxeen euh, lan ngeen jotee collecte ñaata. waaw ñaaxeen moom dara ñoru fi cilmaxa lafa nekk lépp ëppul trent tonnes ci foo xam bi ay 400 tonnes 500 tonnes moo fa doon ñor. kon loolu xam nga jafe-jafe la. Hmm. cent tonnes moo fa doon moom fa nga doon dem ba 600 tonnes 700 tonnes tey 30 tonnes nekku loolu jafe-jafe la ñaax euh, ñaaxeen ci boppam moom euh, tey jii may wax yow la fa nekk lépp mi ngi toll ci 4 tonnes jëm cinq te ñi ko fa indi ay baykat lañu yu jóge ci beneen gox lañu indi jaay si ko fa loolu mooy problème bi. ñoo ngi ci waajal nawet ndax ñoo ngi ci ruuj ngeen war a am jiw fan lañu xalaate jëli kon ci jiw ngir jox ko béykat yi. en tout cas jiw moom xanaa état mooy xool fan la koy jële waaye di biir arrondissement Niakhène quatre communes yi nekk ci biir arrondissement Niakhène ba euh, ba laalaale sax euh, arrondissement Mérina ndaxaar euh, parce que ba ba ba Seko Koul tijjiwul Seko Pekes tijjiwul. seko Mérina Dakhar tijju kon li mën a am kay mooy état mooy xam fan lay jëlee juju waaye fii daal ci commune yii ma la wax gerte ñoru fi dugub ñoru fi ñebbe ñoru fi tey jii euh, ñebbe tey ci jeudi bi passé euh, ci mois de mars bii ñu nekk tey euh, jeudi passé kilo ñebbe mi ngi doon jar mille cent franc ci marché bi kon xam nga amul. ci loo xam bi heure bi quatre cent franc la doon jar à quatre cent cinquante tey mi ngi ci mille cent franc ça. lan mooy solution bi en tant que élu ko parce que tamit bu nekkee ci jamono joo xamante ni bay mi baaxatul na war a baaxee ci ay nawet yi passé sàccum jur gaa ngi fi vol de bétail bi yooyu yëpp di ay jafe-jafe kon naka la baykat bi def. jaaxle tumuranke ndax euh, tudd nga loo xam bii nu gën a jaaxal muy vol de bétail mm. euh, nit ñi jeexalatu ñuy nelaw. benn boo xëyee yiwi ñàkk nga ko ka ko jël da ko for moom kay danga ci topp wala ñu fab ko léegi sax dem nañ ba léegi dañuy fekk gone yi ci àll bi ñuy sàmm ñu duma leen sëf jur gi loolu am na fi loolu mi ngi am ci dëkk yi nga xam bi ñi ngi ci kaw tali bi ak ci biir àll bi loolu mi ngi fi am guddi xalaatoo nelaw te lii problème bi mooy te insécurité bi moom foo ko takk weesu na ko tey arrondissement Niakhène xoolal arrondissement Niakhène nu mu toll la commune de Niakhène ëmb 62 villages sécurité zéro tey lan moo war a mën a tax poste de gendarmerie amu fi lan moo mën a tee Mbéyeen ak Ngandiouf xoolal ñetti communes yooyu lépp ci benn arrondissement poste de gendarmerie amu fi gendarmerie bi fi am ma nga Cilmaxa c'est au bout ca cat la la nekk de de l'arrondissement loolu c'est problème il faut état bi veiller ci. sécurité nit ñi ndax euh, bu barki Dembo Ndiaye rek euh, euh, Mewndu Xatta am na ko ñuy juróom mu yëg leen bi mu leen yëgee ndek mu yër bunt bi ñu basat ko jaasi ba yóbbaale nopp bi daanaka de tiwaawoon ngaay la dem ñu jàllale ko tiwaawoon loolu problème la dañuy fab sa alal rey la loolu problème la kon wol de bétail moom jaaxal nañu te dañoo wax dañ koy criminaliser ba ñu yaakaar ni loolu la mais loolu moo amul li ñuy vo loi yi ñuy voté nañ koy appliqué hmm. parce que problème bi mooy tey ki nga xam bii dafa ñëw ñu jàpp ko bu ginnaaw subaa nga day dem un mois du ko fa def wala 15 jours nga wëlbatu ko dajeeg moom muy dem gendarmerie sax dañ lay wax carrément ni la euh, tey da ngay topp tànk day ñëw di la sàcc hmm. nga topp tànk bi ba ba fa mu jóge woon delloo ko fa mu jóge woon xam nga ne moo ñëwoon fi yow. Hmm. mais boo waxee ñu ne loolu duñ ci sukkandiku. loolu du preuve loolu problème la da ngay dañ lay sàcc mu leer la ni kii moo la sàcc bo même boo ko jàppan sax bu amee un mois mu rombaat lay dem tan ñi dañ koy criminaliser kon ñun dañoo déggatul tubaab wala lan mooy criminaliser loolu c'est un problème kon état bi il faut mu bàyyi xel ci nit ñi bay ak sàmm lañ am ca mbay mi doxul comme mbay mi doxul nag. nañ sàmm la ñuy mën a def ngir man cee dundal njaboot gi càmm googu nag dañ koy fab jël sa bakkan loolu problème la waaye daal li ma la mën a xamal mooy jiwu moom ci mii réew moom amu fi fan la jiwu baax di jóge quantité ak qualité amu fi loolu moom c'est un problème jot mu teel tamit état bi jàpp ci fas am jiwu baax jiwu qualité waaye tamit suuf si dee na wàllu engrais ak itam matériel agricole bi. waaw dëgg li ma la wax matériel agricole moom yàgg naa ko wax matériel agricole Euh, li nga xam bi moom la ci état di joxe euh, moo doy waar niiw gi foo ko takk weesu na ko ndax boo jëlee commune bu mel ni Ñaaxeen 62 villages euh, ngay joxe ay machines yi ji joxe 20 machines ñu loolu ñoom nan lañ koy def dëkk boo xam bii des na fa takk lu mat ñeent fukki machine par jour walla juróom fukki machines ji nga yóbbu fa benn machine yi nit ñi sax gis nga nit ñi li ñu leen gën a xàññum nawet mooy machines yi ñu yor seeni bàyyee ko yoroon seeni maam ca mbay machines yooyu ñoom ca lañ jànge woon mbay machines yooyu tëgg yi mën nañoo réparer machine waaye mënuñoo defaru machine machine bay tëgg yi mën nañ koo defar yu baax mu tëgg mën naa defar saret waaye machine bu ji tëgg mënu ko loolu c'est problème te boo boo bu fekkee nag yow bala ngaa ji nit ñi dañoo bay ba dañoo ji ba pare jox la ci nji ndaw ngay dëkk te léegi di xoolal diggante taw ak sippili xoolal ci am nawet bii li xañ nit ñi nawet ba benn nawet bi mu ñëw bette na le 26 juin la taw bi mu tawee le 26 juin le trois août la sippili xoolal diggante boobu 26 ak le 3 un mois huit jours mooy différence bi loolu c'est un problème loolu jafe-jafe la léegi nag bu fekkee nag yow léegi amoo machine dangay toog xaar ban ni sippili fekk nit ñi jeexal loolu euh, euh, gerte gu la magee euh, quarante quelque jours fan nga koy dabe loolu c'est un problème loolu jafe-jafe la ci nit ñi problème mu machine yi moom manqué gi foo ko takk weesu na ko intrant yi tamit dafa des cher na des na liñ koy jaayee cher na ba pare des na te retard it lay am dudul ñëw ca waxtu wa parce que dañ gerte boo koy boo koy engrais da nga ko war a engrais avant muy tóortóor mm-hmm. te daaw 6 mai 10 bi muy ñëw muy engrais gerte bi boobu am na retard trop waaw gerte goo xam bi dem na bay samp nga nga nga nga nga nga di ko engrais euh, da ngay yokk sam ngooñ waaye dootoo yokk sa meññeef dootoo yokk sa production loolu jafe-jafe la loolu tamit état bi na veillé ci loolu. ban façon jiwu moo gën a adapté wu ci Kajoor. Kajoor moom. qualité bi 55 euh, 437 moom lañ naa fure mooy bi fi wir. Euh, ci Kajoor walla walla wala wala wala nga am CC 835 CC 835 cinq am gàtt na moo gën a gàttale bee sax fukki fan ndax 80 jours la waaw CC 835 boobu bu dee dugub am na ay variété ko bu mel ni euh, suuna 3 mille 8004 boobu tamit dugub la am na beneen dugub bu bees boo xam bi expérimenté nañ ko daaw dugub la boo xam ne bii euh, Euh, bu bees la damay fàtte tur am am am am naa ko sax man produir naa ko euh, benn année euh, daaw jeeg mais daaw xam nga ni moom dugub amul loolu mooy problème bi bu dee si ñebbe ñebbe yi fii dox mooy ñebbe bu xong bi ñu naa ko njagaaw boobu deux mois lay am ñor am na beneen ñebbe buñ naa melax ñebbe bu weex la quarante cinq jours la am na buñ naa muuñ moom it euh, euh, dafay am lu ñuul am tuuf-tuuf yu weex mel ni bàyyi ngañ boobu tamit euh, quarante cinq jours lay dem en tout cas am na ci ay variétés yoo xam bi gaaw na mais ñebbe daal kajoor daal ñebbe sax ñuru fi ren waxuntuma laa gerte du dugub moom tamit. xëy na yéen a ngi séentu ak wayafal ci wàllu xontu jur gi lu mel ni repasse beeg yooyu ndax fi ne moom dara amatul. waaw kooku tamit ñi ngi koy séentu waaye tamit foofu tamit état tamit na bàyyi xel ci ñi muy jox marché dundub jur gi. parce que nag lu waay laaloo guy nga amul repasse jaar ga mooy repasse jaar ga mooy repasse bi nga xam ne bii am na am na potentialité yëpp mi ngi ci biir jur gu koy lekk nga mën a am résultat wala NMA la xam NMA mooy bi ne buntu Pikine boobu tamit repasse baax la mais am na si repasse yoo xam bii ñu ngi koy fab di ko jox nit ñi da nga koy xooj mu ne xelaw loo xam benn vitamine amu ko yàq nga sa xaalis jënd nga ko yàq nga sa xaalis te amulul rendement loolu tamit marché yi muy joxe na xool ñi nga xam bi ñoom ñoo yor des repas yu am qualité muy enema wala jarga mu mu jox leen repas bi nga xam boo xontee sa jur mën am amul résultat waaye am na ci loo xam bi moom boob dong la benn intérêt amu ko day reggal waaye du suural loolu nag jafe-jafe la euh, mu subventionné ko te xam naa ne état xaalis bari la ciy def ci subvention mais qualité bi ñuy jox moom moo baaxul. dañ ñuy jox quantité mais dund ñu jox qualité lan moo tee ñu war a mën a dem enema wala wala wala wala wala wala wala jaarga euh, mu leen nag ñu jox leen repasse euh, jaay repasse boobu boo xam bi jur gi dinañ ci gis seen bopp sàmmkat yi dinañ ci gis seen bopp loolu moom jafe-jafe la ci ci ci repasse bi ñu joxe ah, en tout cas daal bu melee ni liñ ñuy jox dañuy dundal waaye suuraluñu waaw. waaw euh, di sant ñëpp di leen gërëm yéen waa Sekhawgui TV di leen ñaanal jàmm. Euh, di di di leen ñaanal jàmm di leen ñaak euh, ñaanal yokkute ñaan fu ñuy dégg euh, télévision yi ñu dégg leen fi ndax Touba ak Ñaaxeen sori na torop waaye lépp développement moo leen ñor askan wi moo leen ñor ngeen déplacé wu ñëw ba fii dékk nu seen micro ngir nu mën a wax suñuy jafe-jafe te ci ñun seen kàddu yëpp si seen kàddu ci lañ mën a jaarale sunu kàddu pour ñu dégg la ñoo ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. Thank you.